waaw xam nga déclaration prémonitoire yooyu noonu du cëru du woon cëru premier ministre. mais la moo waxoon moo am bu ne on pas plus de. ko bu cinq candidats yi mate de cinq en tout cas. xam nga on a un sérieux problème avec notre système judiciaire y compris avec le conseil constitutionnel. bien sûr. Euh, même si bu problème mu confiance boolewuñ ko ci attelage. ci la bokk <laughs> problème confiance bi c'est d'abord. euh, sur la neutralité du premier du ministre de l'Intérieur en tant que ben, organisateur voilà, là, des élections. Ouais. Ça c'est un gros problème et je crois que l'histoire politique du Sénégal a montré que en 2000 mmh. Abdou Diouf avait décidé d'accéder à la demande de l'opposition et d'une partie de la société civile regroupée autour du FRTE, le mhm. Front mmh. pour la Régula régularité et la transparence des élections, daal di nommer un général pour que, une diriger euh, le processus électoral en tant qu'organisateur. mu lajj de l'intérieur. il y a eu une première alternance. en deux mille douze douze Ablaye Wade a dit je ne vais pas faire moins que Diouf. Mhm. mu génnee Ousmane Ngom mu créer la parenthèse du ministère chargé des élections mhm. en la personne de monsieur Cheikh Gueye on a eu une seconde alternance et tous les acteurs en 2019 ñu ni Macky Macky dafa bañ jële fi euh, Aly Ngouille oui mu ni leen defuma ko defuma ko defuma ko waaw kon xam nga tey boo gisee acte yi nga xamante ni le ministre de l'intérieur mi ngi koy posé depuis le début euh, ci processus électoral bi et même bu dul sax ci processus électoral bi sur la question des libertés publiques et euh, notamment euh, les restrictions yi muy teg une certaine partie de l'opposition sur euh, les, les les les demandes de manifestation mais aussi les mandats de dépôt systématiques qu'on a semblé institutionnaliser dans ce pays ak position publique yi nga xamante ni le ministre de l'intérieur mi ngi koy jël et le ministre de la justice day wane ni bu ñu bàyyee ministre de l'intérieur mu continuer di piloter le processus électoral en tant que organisateur du processus électoral y a des suspicions légitimes yoo xamante ni mën nañ ko continuer di donc confiance problème confiance day am à l'égard du système mais aussi entre les acteurs. ah oui parce que match moom match moom bala ñu koo jouer il faut que ñu wóolu arbitre. mais mais aussi est-ce que war nañu bàyyi président de la république docteur Diallo président de la république ñu jox ko les moyens moom mooy moom lay neex mu changer ministre de euh, l'organisateur des élections wala moom la dul neex mu ni noo du ma ko def est-ce que tamit waruñu am. système boo xam dañ koy teg boobu élection ñëwee y aura un ministère chargé des élections ne serait-ce le temps d'organiser les élections après moom mu jógee. waaw loolu le président Wade inauguré woon na ko fi avec Cheikh Gueye une parenthèse euh, ñu créé ministère chargé des élections mais je crois que ministère de l'intérieur mën na continuer di organiser élection mais tout dépend de la neutralité de la personne c'est aussi une question d'homme ok euh, en France c'est le ministre c'est le ministère de l'intérieur qui organise les élections mais pays anglophones yi ñoom dañ trouver beneen solution euh, ñoom dañ ni seen ay processus électoraux surtout en Afrique. Mm-hmm. ce sont des organes indépendants ñoom ñooy gérer le processus électoral et mmh. je crois que le Sénégal peut explorer piste boobu noonu confier l'organisation matérielle des élections à un organe indépendant ça mmh. peut être le la Sénat ça peut être une autre structure un organe de régulation de la démocratie parce que les assises nationales avaient proposé un organe de régulation de la démocratie euh, ça peut aussi être le ministre de l'Intérieur mais à condition qu'on un ministre de l'Intérieur neutre comme euh, ni ko Abdou Diouf defee woon nommé un général kii boo xamante ni acteurs yëpp dañu d'accord nii kii wóolu nañ ko. Mhm. loolu mën na nekk. Mhm. te bañ ko defee gis nañ ci acteurs yëpp d'accord nañ ni le processus était transparent on a u une alternance. Euh, bi ñu defee tamit euh, la parenthèse du ministère chargé des élections boobu tamit troisième piste la boo xamante ni mën nañ ko explorer Ablaye Wade inauguré woon na ko nañ ko def mais quand le président de la République Macky Macky Sall dit que du ko def répété que trois fois comme ni ko waxee léegi c'est moom dafa gëm ni. dafa war a am une mainmise wala un contrôle sur le processus électoral à travers son ministère de l'intérieur et malheureusement c'est ça qui fausse complètement le jeu du processus électoral moo tax ñett yi moo waxoon confiance ak transparence du am parce que en amont amul woon consensus et que ba léegi les acteurs se regardent en chien de faïence